booy bi moom man yërëm naa ko trop. jërëjëf. jaajëf taalibe Serigne Touba Mbacke nuyu ñu waa Kaolack waa Touba yëpp. tu as fait takkee fer teg tànk góor dégg ko yàlla bindal ko bàkkaar. Hmm? man lu ma leex téere la wa raafi'un sawtan wa aswaatu xaliha xaraamu sima jigéen mu takk fer di dox góor di dégg kaj kaj bi tànk ba mu teg teg yàlla bind bàkkaar xaraamu sima xaraam hmm. na nopp di ko dégg misla samsi duha comme jant yor yor ñoom maanaam bëccëg daal du pour fer moom. déedéet déggoo man li ma li gàttal. Mhm. jigéen laa la nga takk fer. kudul sa borom kër di ko dégg yaa ci yoonu xeex jonge kudul sa borom kër di ko dégg non jonge waaye mi ngi ci yoonu xeex jonge mm, mm, mm. temps additionnel lu na ci temps additionnel ñaari équipe mën nañu yisee zéro zéro zéro zéro ba quatre-vingt-dix minutes yi ñu dugg temps additionnel ñu dem temps additionnel ba mu des vingt secondes ñu sant ñu ne pëccax bii maanaam takk fer muy def bruit muy def bruit lay dox nit di ko dégg laa la wax. bàkkaar pour borom kër yàlla ngi la ci. mais mélodie la dañ koy dégg kay moom la. allo mélodie la. oustaz na nañu waxante dëgg takk fer. Mhm. mu yëngu bàkkaar la. waaw parce que moom boo takkee moom mu yëngu moom di nga romb nit. par moom moom tax laalax donc bàkkaar la takk fer mu yëngu. mag ñi dañ ko daan takk. oustaz nag daan laxas ci dara ba doo ko yëg. man tu man damay ah, jàngale de. ah waxuma ne takk fer daa hmm? xaraam biir néeg. waaw njàng <laughs> sa biir néeg ngay daal. Ousane nag jaxase yéen ñaan allo Ousane nag Ousane nag Ousane nag Ousane ne tax mu yëngu nag dañ waxante dëgg na Ousane eh, jigéen bu lu ko ci kaw bëri na bëri na bëri na bëri na na bëri dañu ne boo amee doom bu góor da nga war a tax affaire dañu ne ah. doom bu góor sa ndigg warul wéet boo amee doom bu góor sa ndigg warul wéet da nga war a tax affaire yooyu ay wax la rek ñu dañoo man dama indi aadama di diine waaw waaw waaw d'accord parce que wax nañ ko nag ah dama laa indi doom bu góor man daal xawma ci dara man xale laa njaga li nga naan biberon araamul waaye jekkul ci ponkal. Ah, am na fu mu jekkoo ci ponkal tamit de. xanaa doo wax guddi. allo. sañ nga xoonam. si ñu ngi leen di ziare. Ah. ñu ngi ziare mbay Mbaye moom ak ñu ngeen dendal. ndefay baax a baax a baax. yal na yàlla suñu borom yàggal taxawaay. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw man nag Louga dëkk. Mm-hmm. fa laay nii dama mm-hmm. ndag dafa nuyoo rek ma xam ne nar na fee wax lu am solo macha allah ndeysaan nga ne lan oustaz yow. ma ne lan jaga. wa raafiu sawtan. oustaz utal na ko aaya nag faf. araamu simaai mista samsi fer daal suñu gi utal na ko aaya. fer fer fer laa la lii ma lay wax mu ngi ci wala tarkanan xibbi li daari fanaa naa ca boobu la nekk. nga ne doo day da xaar seexu fan. Hmm. ngay doo bàyyi Seydi ko ko bind nga naan. Ah, ok wa raafi'u sawta nee na jigéen ju baatam di jóg ca kaw. Hmm. wa aswaatu xaliha ak ak yi ñuy takk ci ndigg xaraamu simaa yi araam na ci ñu koy dégg mista samsi doxaa comme jant yor-yor. dem na ba ci biir waaye mu ne wa fi talibil arzaq yaa qawmi faj ma ay waaye ni ngeen xaalis rafetal leen ko. la ilaha illallah ci El Hadj Malick. allo. allo waaw. saa ne takk fer keneen di ko dégg bàkkaar la. allo ku dul sa borom kër. dafa am mélodie. macha na ngeen na am jàmm. yàlla bari na de. lii nii nam ñu la ci mere de allo. waaw ñu ngi jégal téléphone bi maam si di temps bi xoj na di daan nañu bàyyi oustaz mu mën mu mën a wax dernier moom na yeggali oustaz une minute moo ñu desee yow lañ koy bàyyi une minute bi ñu desee xale bi laa koy wax léegi bàkkaar gi ba tey fa nga taxaw jógoo fa non am déggoo li ma la wax jigéen ju takk fer man bu ko déggee lan la ci andi ba mu am bàkkaar moom mu jaga parce que l'islam dafa fiir jugul foofu de l'islam dafa fiir parce que kaj kaj bi muy def njaga fer ci baat lañ koy takk wala ci tànk ci digg lañ koy takk te Bousso Diouf nee na ma bàkkaar la waaye bàkkaar bu tuuti tuuti la <laughs> waaw foorul nag bokkul ci ah. bàkkaar yi foori nag Iram bienvenue lépp lu ma retaan man du ma de eh, eh? yi ñoo gën a rëyante waaw waaw mais mais dafa am lu ne a xel mu koy gunge salaatu ala nabi ne mën na ni nga jeexalee émission bi dafa lu ne ak koy gunge dama xam ne la fer hmm. te ñu ne ñu ñu jigéen bu am doom bu góor ndigam warta wéet. ba tax nga war a takk benn fer nag bu sew. waaw waaw bu sew boo xanaa moo njëkk a def bruit bu sew. waaw yëpp a def bruit. Ah, nga wut ba boo bañee sa ndiggu wéet di ko takk. de fer la ñu wax fer la fer la ñu wax nag oustaz. nga ëw ko. Eh. mais ni balaa fond de ba gën a sew moo la bi bi bi gën a sew moo gën a bëri bu <laughs> boo xam nga balaa fond. xam nga balaa fond. ah oustaz fi mu toll nii man damaa mënatuma wax. foog ma dem am temps de réflexion <laughs> mën a ñëwaat. kon yow mercredi daal nii la demee ci sax oustaz est-ce que xaar ba mercredi yow. bu ma génnee ma ma ma ma jàmbat ma càmbar say mbir. xale bi mu ngi ci dëggam. waay yow way jur wi na teggi tànkam. Njaga Oustaz Alioune Sall nee na lu la fi mën a jox ak loo fi mën a am boo toll ci sukuraat réccu ko gis naa politicien yi. Mbarka Diop nee na Ferda seytaane nag. dëgg la dafa seytaane parce que lu tax. maanduwul taa Maguette bu tonton Maas maa ngi lay nuyu. mais njaga lii bëggal xuloo jaba sa jëkkër loo mën ngaa mën nga xoolal mën na laa téel a tëdd nga nga nga woddu du gis woddu gi ah. comprendre ah. man ngaa def loola neex ci néeg bi du ko gis mm. waaye boo takkee fer ba bay noo mën a mu yëg ni waaye takk ba ngay wax te buri fer la bàkkaar la départ ci ko du bàkkaar ci ku jëkkër ji nag ah déedéet waxul jëkkër ji oustaz keneen la wax déggoo ma la ci jabar ji ko takk romb boo déggee mantu am na jigéen ñoo xam dañuy takk ba bëccëg waaw di kañang kañangi ak moom. mantu jigéen kon daal ci gàttal takk fer dem marché wala takk fer dem xew bàkkaar. dafa araam ci bu attention ci bu ko. léegi ñiy jaay fer ci bi nag. déggoo ma de ah nopp moom dina ko dégg. non ko takk ñu koy dégg. ah ok laa ñu ngi koy dégg xam nga am na mag ñu njëkk ñi bu ñu ko daan takk dañ daan jël sër lu mel ni malikaan laxasee ko ko takk ko ba doo dégg benn buri ñu takku seen digg boole kook nag war doonu ma juróom-ñaari sër mag ñi bokkul ak fii xale yi nga xamante ni boo doon jaay sër di jaay fee baa baa mu baa dina jar yooyu daa tàng te léegi jamono leen loolu arrêté leen ko te def kat kat ba suba incha allah baaxul sama waa ji yal na la yàlla jox seen takk nag yal na la yàlla jox seen yi ñuy takk nag barke Seydil ndigg yooyu def buri usaa yooyu araamul dafa araam seen yi seenetu ndigg bu dee dañ koy dégg de rubrique boobu dafa defa mi ngi mel ni sama chaîne bi ma takk sama baat rek ma kon ko sama ndigg non loolu amul bàkkaar amul bàkkaar de mort nag léegi naa peine de mort mooy peine de mort ñu koy signé tribunal arrêté leen loolu bàyyi leen loolu te def kaj kaj <laughs> ah bu mu kajar kajar yi nay def na def na def teg silencieux kon kaj kaj kaj kaj ah, la waxal affaire faire quoi. oustaz déedéet ma wax ji day leer balaa may dem parce que man damay. dafa am fu may jaar nii. man kilifa dara perturbe ma man kilifa diine la nga nekk kat wa raafi sawtan oustaz utal na ko. waatu jigéen ca kaw. wa aswaatu xaliha ak seen baatu fee. araamu simaai araam na ci ñu dégg ko. oustaz nee na. mis na samsi doxa comme jant yoroor oustaz nee na. nee na sëñ ñoom Seydi El Hadji Malick nee na. jigéen ju takk fer. waaw góor di ko dégg judul sa jëkkër araam na ñu ngi la ciy bindal bàkkaar leer na ba mel ni jant yor yor bàyyi leen loolu kaj bàyyi leen ko arrêté leen loolu baaxul ba suba ak jàmm ba suba incha allah